bon man euh, maa ngi tudd Pape Diop ñu gën ko xam sax ci Basir Diop laa vrai tour bi mais Pape Basir Diop la ñu gën di wooye nekk le maire de la commune de Thiès Est. monsieur le maire ngeen far Talla ak problème bi ni mu demee nii lan nga yaakaar ni moo ko waral exactement. ñu fal Talla Sylla yéen a ko fal maire ci seen list mm-hmm. euh, euh, ak problème yi ni mu demee nii loolu lan moo ko lan moo ko waral réellement. waaw mooy li ma wax rek. kenn ku nekk war nga xoolaat xam nga kenn li nga ko ràcc jëmale si kanam mu del ku nekk boo jëlee di wax euh, man la man la wala man maa jub man maa baax man maa nangam ak li nga ma laaj ni ñun ñu fal Talla si la donc du woon raison ñu dikk tey da nga wax ñun ñoo ko fal effectivement ginnaaw yàlla ñun ñoo ko fal en commençant par man mi xam ne maa nekk le mandataire maa yóbbu liste yi ma waxaat ko encore am na position boobu ma ko fa defoon Idrissa mënu ci dara en ce du nekk le maire de la ville loolu pour mu leer kon donc loolu lépp bu amee ba ñu ñëw tey mu nekk le maire de la ville ñu fal ko am na lu bari wóoru ko nag jar comme li may wax rek dama noon man si sorité moi personne du ma jaxase ak man ak Idriss Seck man maa ngi man maa ngi def li may jaxasee moom kay ci moom lay jóge wala mu wóor man ma jël sama responsable amee du ma dee wax naan dégg naa ak yi foog naa nangam parce que nag loo ci gis nag teraanga nag. parce que bokkoon war a na bokk liggéey la mais ci kaw moom xam na yéen ñiy laaj it xam ngeen parce que Idrissa moo yoroon ko moo doon coalition bi ñoom ñëpp dana ñoon booti ci moom. da bëgg ni taala du primaire yi moo ko moo ko choisir parce que da doon def seen ay primaire avant loolu. c'est pas des primaires parce que moom wax nañ ni bi ñuy def primaire yi y avait Seer Manga moo gañewoon xam nga c'est que nag euh, partie boo gis dafay organiser. il était le secrétaire il est le secrétaire général du parti donc moom bu demandé jël taala c'était pour booba bëgg xam ni ñun ñoo ànd nañu yaatalante démocratie la doon wone ak cëral ko mooy li may wax rek taala bu ñëwee ci sa liste wax dëgg yàlla nekk doomu Thiès nekk deux fois candidat a la présidentielle yaa ngi dégg kooku bu ñëwee war nga ko jox cër comme na ma defal man ba jël turam bi ma nekkee tête de liste Bassirou ñu ni parité ma teg Garmi Fall honorable député xam nga donc man it mënuma tegaat ku dul taala te na mais su ma bu fekkente ci suuf la comme li ma la kenn du ci man dara te boobaa du nekk maire de la li yàlla tudd nag mais lu yàlla tudd tudd am na fu mu ko jaarale dañ may wax kenn moo gis yàlla teg toog ne ci suuf di teg ci loxo nit yàlla dafa wax ñu sant fii yëf yi jaar mais nag bu ñu demee nag ba tey. lii am tey moo tax ma ne nag kon nit ñi war nañoo xoolaat xel war nañoo xoolaat euh, jikko yi ça ne veut pas dire que ñu ni euh, euh, xañ lu ma neex def wala yàlla nangam yàlla ku ne xam ne ni yàlla moo yore lépp waaye loo ci gis rek am na lum ci namm ak bis ba nit ki nag na nga il faut que ñuy santante parce que nag ku santul da ngay xarab donc suñu diggante ak moom amuñu yenn problème ni personnel mais nag ci wàllu nekk bi nga xamante ni ku nekk dafay euh, war a jël sa responsabilité ci fi nga féete muy sa parti am na lu bu jotee doo ko seetaan bu jotee da nga jël sa responsabilité loolu moo tax euh, boo ne suñu digganteeg moom lu ci mën a nekk itam bu ñu waxantee rek te yàlla tax man dama ni moom ci boppam man d'accorduma ci ni mu doxale pour xalaat ni ay nit a koy jaxaseeg Idrissa déedéet parce que ba mu daan wéet ak Idrissa di toog ak moom kenn du ko fekke la mu waxante nag moom ba mu euh, lam ko di ak yooyu ba muy dem mu dénk ko këram loola ñoom ñaar kese la woon te ñun ñoo ngi fi woon donc nag loolu du ça ne veut pas dire que nga xalaat leneen wala nga ku nekk libre nga xalaat mais defin wi nañ koy rafetal parce que nag wax bi nag bu ñu waxee nii tey ëllëg mën naa am keneen tontu. mais bu ñu bu ma xam la muy tontu keneen ñoom bu ñu waxee bu ñu xam la leen di tontu parce que ñun fi leen lépp fekk. ñu jógee ci jafe-jafe yooyu taala woote démb est-ce que yow am nga benn jàngat boo def lii xam nga amul korom bi parce que ñun ñun réew mi ñoo fay majoritaire te ñun nañ leen Cees ci boppam ñun moo ñu ñor parce que mën Idrissa toujours xam ngeen ni ku ànd ak moom Sénégal ko ñor rawatina Cees gi mu dëkk kon bu ñu nekkee yore majorité bi ci commune ville du ñu xalaat naan dañuy boycotter ay conseil non nañu xam ni ñun ñooy ko doxal lu mu fa bëgg a def ci ñun la jóge su dul loolu bu ñu jëlee suñu décision ni dara du dem du sotti du sotti parce que nag majorité bi rek lañu wax kon donc ñun boycotté wuñu benn parce que man mi ngay waxal dem naa convocation yi euh, jot nañ ko comme moom bu xoolaatee texte bi 72 heures convocation yi war na dem avant 72 heures bu xoolee bi mu koy jot kenn ku nekk ñun man boog bi may jot bu ma ko xoolee matalu ma 72 heures et y temps euh, tant d'autres ñu wax loolu parce que tout le temps ay convocation day tardé donc mais terewul dinañ dem segam ñun ci texte loolu la nga xamante ni texte ko wax nga mën a muñal nit ki loolu ba wuy si ko nga xëy la ñu ni convocation euh, conseil bi c'est le samedi bi 9h ou le nangam mais ngir yàlla quotidiennement jigéen soxna bu xëy këram war a ñëw di nga toppatoo si kër ak jamono ji ni mu méttee muy ñun ci góor ñi ak ñeneen ku nekk di nga war a xam am loo defi mais tërëwul di nga sóoraale ni war ngaa dem conseil ba moo waral bi ñuy ñëwee man avant may agsi on j'étais là-bas 11h05 avant may ñëw laa woo boo ko mun ma si le veneen séance parce que amuñu ko mais terror bi mu ñëwee laa gis ñoo nga xamante sax bokkuñu réew mi bokkuñu réew mi mën naa ci cité ñu bari ñu ñuy ñëw pour vous dire que ni retard yooyu euh, réalité Sénégal loolu bokk na ci ñàkk man a respecté xam ne rendez-vous mais nag bu fekkente ni kii day sa nawle mu ñu la sa 72 heures bu la neexee ni la convocation bi ñëwul à temps ah da ngay am raison te ñaata nit fi nekk ay conseil ñoo xamante ne duñ teg seen tànk ci conseil municipal pourtant moom mii il est conseiller municipal dans ma commune jour installation ba la fa gëj mais loolu euh, il faut que il faut nit ñi leen te mais bu ñu bëggee indi wane ni nii laa mel nit li ngay wax ku wax rek jëmale sa kanam li ñu naan ku ràcc jëmale sa kanam mu dell mais wax pour yow la mais nag jëf ji say wax nay niroog say jëf moo tax ma la say convocation 72 heures war na ko def ñëwut les textes sont là yow nit ki war a ñëw ñëpp ñëw nga xamante nit ki commencé nañ fi conseil ay midi ay une heure yéen a fi daan ko seetaan parce que question de tolérance la te nit ñi nag koo jurul euh, yoroo wërsëgam nag dëgg maslaa moo fii nekk mais dafa nag toll nañu fu ñuy fu ñuy mën a éduquer suñu yar war naa damm. monsieur le maire seen digganteeg ville bi mu mel dafa am ay ñagas-ñagas ba fan yi am na problème mu ferraille bu fi bu fi jóg est-ce que mën nga ñoo leeral problème boobu nu mu demee. Euh, xam nga mooy li ñuy wax rek. politique bu mu tax ñu def ay ennemis politique bu mu tax ñu nekk ay euh, ay ay ay comme noon comme ni ma ko waxee bu mu tax ñuy ñaawal suñuy jikko bu mu tax ñuy wàññi suñuy valeur surtout ñoo xamante ni ñoo bokk dëkk àndan aussi ànd yu yàgg ànd baat la ko lal ak fa mu jóge ko nekk xam na ko kon bu mu war a tax nag nit ki tey même boo demee ba sentir ni nekkatoo ak moom wala bëgg nga tam xalaat gis sa bopp faneen bu mu war a tax mukk parce que làmmañ mënu lekk morom te ñorul wax ji parce que ku ne ci télé yi wax ci média yi wax calculer lañ lay tontu. nit ñi observé tam nanu xool bu baax wax bi jaadu na wala jaaduwul problème ferraille yi amu fi parce que bu dee ferraille bi nga xam bëgg naa nga xam tam lan fan la ferraille bi jóge ak nu mu demee parce que da ma nekk ferraille donc bala ma doon avancé doon na doon naa bëgg a xam exact dañ ni benn pelle mécanique bu nekkoon foofu ak benn benn citerne bu fa gaaree woon te ci dévolution bi Euh, maanaam place ba ville lañ ko yéen lañ ko jox mais matériel ba ville moo ko moom. voilà très bien yow sax indi nga xam nga indi leeral parce que da nga ni benn citerne effectivement benn vis euh, citerne bi vide de la. waaau bi ci des pelle mécanique la ñenn ñi say nattango am nañu sax benn tasseuse parce que benn tasseuse ña ko wax mooy ña ñëwoon te xàmmewuñu benn tasseuse ak loolu donc je ñooñu war a nañoo xoolaat bu baax sax li ñuy wax parce que nit ki looy duggit na nekk lu leer loo xam parce que ci dévolution bi comme li nga wax ci acte 3 bi fo euh, fourrière bi mi ngi fi woon garage municipal foofu noonu la tudd te information bi ñu ngi wax ni comme li ma ko wax rek comme je peux citer même Ahmed Mbaye la ma ko wax ni ko garage municipal bi yooyu ngay wax bagage yooyu fa nekk di ñaar yi nga cité di citerne di bentasseuse di astafurlah pas pas benn tasseuse di pelle mécanique am na fa trente cinq ans yàqu épavé trente cinq ans ma ne ko trente yooyu boo ko génnee say at tuuti ngay dese et eh, mu ni ma waaw ma ne ko kon jërul ngeen di coow parce que yéen ñun bi ko ci dévolution bi dañ ñu ko affecté bi ko affecté mu nekk fa yéen buñ leen ko joxee. mais war ngeen mën a dem jël ko bu dee yéene ko parce que kenn ku ne jëla nga li nga moom ñun dañ ko fa gis mu xatal nañu ba ñu génne ko tout récemment ñu génne ko ci biti ba mu am fi 6 mois ci mbedd mi kon sa alal nag nga wàcc ko ci mbedd pendant 6 mois ñoom mën nañ ko jël sa xaaju guddi kon kenn du xam ñun li li sama agent doon def nëbbu ko ñëw na xalaat nañ ne war nañ ko mën a dépanner peut-être. man bi ma xoolee sax en tant que parce que nag li ma en connaissance de de cause ci métier bi xam naa ba xam dama doon xalaat ndax war nañ ko mën a dépanner au profit de la commune parce que ab comme pelle la mais li ci nekk ci pour nga dépanner ko dina métti donc bi mu wax loolu moom intention bi la jëlan xalaat ni gis na benn waayam pour war na ko mën a yóbbu pour jéem a xool ndax dañ ko mën a dépanner pour commune bi parce que tout le temps les euh, ci ay vidange fosse le genre nous sollicitent gis nañu pour le les des désensablement donc ñu xalaat loolu mais kenn xalaatul ñoom la ñuy wax wax ñu ñaaw moo tax dafa rafetul parce que kenn ku ne war naa wax digganteem ak yàlla affaire politique da ngay politique ci lu ko jar loo xamante ni da ngeen yow feeraay la benn nga ñëw fekk ñu di ko jël nga ñëw woo ki ngeen ni moom moo ko joxe mu ñëw présenté wu ni la non dama yaakaar ni ñoo ko moom parce que ñoo moom site bi on nous a donné la le site depuis presque bientôt trois ans ñoom ñu am fi dara loolu fi nekk bi ñu joxe ñun site bi ba nekk ay travaux génn ko ci biti mu def fa six mois wala cinq nekk si biti mais kon yàq bu fekkente ñoom seen alal la woon soxla woon nañ ko war nañ koo jël parce que néeg na nit jël ko xalaat ni dañ ko war a utiliser pour ñun suñu commune xam nga wax donc bu jaree ñu def yenn yi bi ñu ñëwee. woo ki koy jël mu leen diw ma ko jox mu bon baa ngi nii ñu woo diw bi leen ko jox mu ñëw taxaw wax leen ni leen man dama yaakaar ni ñoo ko moom ñoom ñu ni ko moomuñu bu fekkee dañoo xëccoo à la bu fekkee dañoo xëccoo mu yooyu am ci sax mu jar leen li mais mais dañ ne dañoo fekk ferrailleur yi di ko dagg. loolu am non xam nga man j'étais même pas là-bas. ci information bi ni ko amee rek laa ko am. Mm. mais ce qui est sûr et certain que mënuloo koo jël te dindi wuloo pays parce que ñoom xamuñu li ñuy wax pour ko bëggee teg ci oto il faut nga dindi pii nañuy rafetal il faut pas dire ñun dañoo ñëw il faut nga boo koy dindi il faut nga ko ak ay jumtukaay ay matériel banque dañoo dindi pii ñoom pour teg ko man ma fa nekku sax xam naa ni bu nga teg ko ci plateau wala fen il faut nga teg dindi pii donc nag ñoom bu ñu gisee yàlla def na demul ma nga ma nga fa tege seen alal la mais de sax dama wax nañ ko jël si. mais ma nga ñu bàyyi ca mbedd ma mbedd ma nag ci suñu commune la nekk daf ñu xatal daf ñu xatal sinon parce que nag waruñu ko fa bàyyi sinon ñun ñu jël ko yóbbu ko fourrière parce que suñu droit am nañ suñu yo suñu droit waruñoo jël seen épave wàcc ko ci mbedd wala ñu wàcc ko ci suñu propre suñu lieu moomante ni ñun ñoo ko moom parce que lan la dañuy euh, lan la ñuy jaay. ñoom jotoon nañoo dem police sax. dégg naa dem nañu police. yow kenn woowu la. mais kenn woowu mais dem gi police gi laa ni mais dafa booy dem da ngay dem police ci lu ko jar pour dem police pour bëgg buzz wala pour bëgg nanga man maa jub man maa nangam mais c'est foo ñun on se connaît dafa am loo xamante ni da ngay def loo xamante ni lu jaadu wala lu rafet yow jël sa alal sànni ko ci mbedd mbedd mi moom la ko parce que toujours ñu ngi wax nag euh, euh, léerut war nañ ko mën a euh, war nañ waruñoo bàyyi ku jël sa sa mbalit sànni ko ci mbedd ñoom ñoom moom ñu dëkk bi moom ñu réew mi dañuy jël mbale kon sànni ko si mbedd ñu gis seen alal ci mbedd mi au lieu que ñu ñëw jël ko ñun ñu ñëw pour wër koo jël te xam xam ni bi ñuy affecté loolu fi la nekk mën nañoo jàpp ñun ñoo ko moom kon lan moo jar ay naan dangay dem police ci lan <laughs> yow gis nga ñëw nga jël kii ne ki si kër jàmbur la nekk nga ni lii dañ ko yow lañ ko yow yaa ko moom yaa ko doon doonal mais ngir yàlla de grâce kay boo ko jël sax war ngaa mën a am honnêteté ñëw ni ah lii kat man maa ko moomal mais bi nga ñëwee kii ni la la man maa moom ndax man it maa maa doon kër gi xam nga wax mais li nga fi moom nga boo ko jël nga ñëw ko ci ñëw bu rafet mais bëgg ay affaire yu bës wala ay affaire yu man maa jub man maa baax man maa nangam c'est faux parce que nag mënuloo fekk sa alal ci biti ñu sànni ko fa 6 mois nga dëkk Thiès di ko romb saa nga jël si ko wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant la ñu war na wax sax ñu ñi ko fa garder. monsieur le maire sa kàddu ko mujj. sant yàlla di ñaan jàmm. di wax ni tam nañu delloo si xel yi aussi di rafetal parce que wax yu ñaaw yi ak defin yi ak wax loo gëmul il faut que nit gor su ne da ko war a daw man personnellement loolu laay lancer appel que ni nit ñi nañu delloo si seeni xel parce que bu dee benn ñun bu dee Idrissa mi ñu mi ñu topp suñu nawle la bu dee keneen ko topp Macky Sall sa nawle la bu dee keneen ko topp keneen sa nawle la warul la jaral ngay def loo xam te ni sa diggante ak il faut que nit ñi xam ni ñun ñu topp di responsable wala ñu muy ñeneen di sëriñ ak lu mu mën a doon kenn ku ne da la tërësal di nga la laloo sant joor donc bu mu jar nag ngay def tes choses yoo xamante ni ëllëg te gis nañ ko toujours gis nañ ñoo xamante ne dañ naan naka la diw mën a delluwaate ci diw ndax li mu ko doon wax kooku dafa jar sóoraale ñun dañuy man personnellement je quitte avec conscience que ni fu ginaaru comme li ñuy wax ginaaru kenn neenu ma. fu ma bu ma neexoon bàyyi Idrissa Seck tey kenn du ñu dem koo trahir xam nga wax parce que nag nit ki da nga war am fulla wala nag gëm sa bopp di ko doxee di ko waxe te bàyyi nag yenn yi parce que yëf yi ñàkk yàkkam yenn yi yàkkam sa wërsëg la nit tax ngay mel ni yow gëmoo sax yàlla bi la bind nit ki nga gën a gëm ki nga topp en tant que soit muy responsable politique wala koo xamante ni dafa yor euh, sa sa teraanga mais au moins wane sa sa dignité mais li ma gis ci politique bi ni ñuy doxee mais ñaaw na ba tax nag ñu am fulla ñëpp bëggatunoo politique tey nag ku politique bi mun mënuñu ko bañ a def parce que nag il faut mu loolay doxal réew mi mais war nañ ci boole aussi dignité mais man ni ma gisee fii ci Thiès gi te li am Thiès moom fépp mais rawatina Thiès gi nga xamante ñun ñu ci bari ñoo nekkan ñu niñ doon waxee ak tey boo tegee loolu mu wóotoo moo tax ñu naan toujours nañ def attention booy wax rek ñu ñu tegalaatal la <laughs> vidéo bi au ñu tegal la kii bi c'est très important te vidéo yëpp ngi fi yaa ngi gis toujours nit di défendre nit mu defal ko ëllëg mu waxee ci moom loo xamante ne da nga naan non donc yooyu nañ koy bàyyi nañ koy moytu man di damay li may wax daal du ma xas kenn mais bëgguma ko ma xas mais nag dafa am loo xamante ne nag euh, mënoo ci bañ a àdd bu xewee donc il faut que ñu wax man je ne suis pas trop médiatique mais nag euh, li ma gën a gëm mooy. régler base bi nga xamante ni fi laa nekk ànd ko ak euh, non responsable yi nekk ci commune Thiès Est pour jéem a liggéey parce que ñu ngi jëm ay élection ak yeneen loolu lay lancer appel que ñëpp dem inscrire massivement pour que euh, euh, yàlla may ñu ci ndam ci li jëm di ñaanaale aussi itam di lancer wàllu appel it yàlla def jàmm Gambie gi parce que xam nga le 19 ak léegi soriwul parce que Gambie mooy Sénégal. benn famille lañu donc euh, yàlla na fa yàlla mi nga moo am euh, te sañ yàlla na fa yàlla def jàmm yàlla yàlla def euh, dal dal parce que nag wax ci bari na xel yaa ngi jaxasoo donc ñaana fi sës